الرحيم في ختام هذا الملتقى الإسلامي السنوي نشكر كل المشاركين باسم اتحاد الشبيبة المسلمة السنغالية ونشكر المحاضرين والجمعيات المشاركة في هذا اللقاء الإسلامي السنوي للسلام نشكرهم على المشاركة ونشكرهم على التنقل من جهة إلى أخرى مع تحمل متاعب التعب ومتاعب السفر للمشاركة معنا سنويا في هذا اللقاء mbokk yi xam naa ne waxtu tisbaar dafa jot te ñu sant faalit añ baa leen di xaar ci restaurant ba bu ko defee dañuy dañuy dañuy dañuy jéem jotaay bi <coughs> ba dañoo jox suñu mbokk Oustaz Moussa Kanté mu di déclaration bi ci arabe mooy li fi nag démb ak tey kàddu yu jib démb ci ubbite ga ak kàddu yi fi jib tey ci ay waxtaan am mbokk yu baax yoo xam ne ñoom leen dénkoon loolu mooy mbokk yu xarañ ci jëtal sëriñ Abdou Salaam Jóob ñu liggéey ko liggéey bu sell sell sell traduire ko ci araab bu ñu paree ba dañoo jóg ci jotaay bi dañ ko fi liir ndax loolu mooy tënk liñ fi doon def waaye du ñu jàll te gërëmuñu njiitu réew mi soo excellence président de la république wax naa démb ca jotaay ba ni matul fukki fan bi mu bindee lettre di encourager li jëm ci jotaay bi ak jéego jotaay bi bëgg ci réew mi mooy jàmm jàmm Sénégal moo ñu te moom xam na li ñuy dox noonu la foofu la foofu la féetee ñu dugg ñu ci lu ñu war a waaye réew mi moo ñu ñor diine ji moo ñu ñor di gërëm xalifa yi lislaam yi ci réew mi yëpp su ma ci tànnee Cheikh Mouhamadul Mountakha nga xam ni démb doomu boppam la ñu yónnee doomam la sax waaye mën naa ne conseil spécial la ndax gan guy ñëw Touba di gan ak lislaam wala nga jógee jëp ambassade wala ci ONG wala nga jógee à l'étranger moom moo lay teeru moo lay dalal moo lay moo moo moo lay taxawoo mu sëñ Abo wax naa démb ni màggal daaw jéeg wala ñeenti at ci ginnaaw màggal gi dafa weesu <laughs> cérémonie bi jeex rek ma ma ma ma def fi faa leen pare eh, ànd ak ambassade ànd ak sama gan yi leen yóbbu Dakar mooy gan yi jóge ci réew réewu lislaam yi ma ñëw ba ci autoroute bi sëñ aboo woo ma ni ma sëñ bi dalaa dalaa soxla léegi <laughs> ma jàq loolu sa defe ni ñoom sa nga dañ faa jaar <laughs> ak ñi sant mbeng parce que suñ mun taxaa mu jóge ci cérémonie la woolu moom da ngay defee ne seexu <laughs> naa la sa seexu naa xam ne waa <laughs> defe dangaa ma ne ko kon de xanaa damay bàyyi gan yi jàll ma dëppaat ndax maa ngi ci autoroute bi ne suuti mu ne ma may moom kon ma laaj sëñ bi te waat la ne suuti mu ma ni ma sëñ bi neen mën nga àgg ba Dakar ba yeewi gan yi ba ñibbi nga ñëw ndax jàmm rek la ba ma demee sëñ mu taxaa daan ma li ma doon dooy mooy euh, sant la jàjj la gërëm la ndax liggéey bi nga liggéey ci màgg gi kon na kooku fu ma toll di ko siiwal ndax wa ammaa bi ni'mati rabbika fa haddis Cheikh Mouhamadou Mourtada daana wax ne lu baax yi nañ koy waxtaane lu baax yi nañ koy siiwal ndax lu toll ni xalifa général des mourides ñu koy cérémonie officielle ak ni mu xatee ak màggal Tuubaa ak ni mu sama jëm ñu ñàkk yi mooy xalaat ba ni ma woolu ma dem mu yëkkati jox ma yëkkati kàddu jox ma ko loolu tawfiq suñu borom la kon nag nañ ko ñaanal yàlla yàlla bàyyi ko fi yàlla sàmm ko wax naa démb nii symbole la ci umma bi mais symbole la ci xam-xam waaye symbole la ci jàmmi Sénégal xam ne université bi mu def def ci 37 milliards ba pare tàmbalee université bi daaree alxuraan ci biir université bi moo ko jëkk def ci àdduna bi université bu am daara moom Tuuba la tàmbalee mosu am ci àdduna bi <laughs> ndax université bi ñaan ba nga fay dugg da ngay am bëgg waaye def université ba pare ba xam ni Tuuba dëkkub lislaam la dëkkub alxuraan la dëkkub leer la mu ne kon nañ def base muy alxuraan jël junni xale yor seen lekk yor seen naan yor seen yére ñu leen jàng alxuraan loolu lu am solo la yàlla na ko yàlla sàmm te bàyyi ko suñu délégation mag bi nga xam ne ñoo fi teewal sama xarit alaaji sëriñ buub alaaji sëriñ boobu ñëpp xam nañ ni ma demee moom sama xarit la sama collaborateur la sama nit la te aussi jàmbaar la wax naa ko démb ne ko dangaa yeex def candidature ndax yow candidat nga bu yàgg avant ñu def ay candidat ndax am na candidat yoo xam ne moom ñoom Alioune Ndiaye ay candidat à la candidature dong lañ mais candidat boo xam ne ba nga liggéey sa réew léegi mën ñaar fukki at yaa ngi ci daara yi yaa ngi ci social yaa ngi ci penc yi yaa ngi jël chaque année lu mat 60 millions di ko joxe asakati mosoo ko gën si gémmiñ Magal tubaa ñetti kër këri Serigne Touba yépp fi gan yi ne man mii at mu jot mën lay jox ay cabion boisson camion euh, ndox danaa moo xam ne sëñ Bass bëgg ci ñetti kër yi ci boisson ndox mu joxe ko fa te ci làmmiñam noonu la koy defee ci daaray kokki daaray kokki duñu yolwaan duñu génn si biti sëñ Mouhamed loolu Muxtaar mu nii waaye yaakaar naa seen ndékki chaque année wala chaque jour ay at nii moo ko gàddu ni xale yi seen ndékki maa koy def ak yeneen ak yéen ñu fay def di ko def ci réew mi yëpp wax naa démb jotaay ma ni fii ci Thiès du toog ñaari weer wala ñett su sang faal mi xam na dara te yónnee fi tonn ceeb yu bëri ni ma joxoon ma ko daaree alxuraan te xam sa sëriñ daara yi danaa ma ne joxoon ko daaree alxuraan te bu ko filmé ma ne ma ne ko nag du ma ko filmé <laughs> ndax lu baax des koy wane kon sëñ Moustapha nag ma nuyu alaaji sëriñ lu bëree bëri defal naa ko diplôme boo xam ne bala nga fay jóge dañ la ko jox nga joxal ñu ko ndax jéego yi muy dox ci kër diine yi jéego yi muy dox ci tànku Sénégal ak lii mu yéene Sénégal ci yiw yal ko yàlla dimbali ba jot ci incha allah di nuyu délégation xisib tarxe bi fi teewoon démb sëñ Youssou Diop di jàmbaar nga xam ne heure bu ñu amee gën a étranger jamono Sine ba tey gën a étranger gu ñëw su su fekkee doon naa ci dara man su ma sëñ bi laajee dem naa ko ni ñuy yóbbu xisib tarxe ndax duñu fa am ñu naqari jàmbaar lool am taxawaay boo fa yóbboo chinois du mer boo fa yóbboo égyptien du mer boo du mer ndax kenn ku ñëw ku ne nañ xool xeeti xéwal yi gën a jege sa aada ñu defal la ko ci anam gu xarañ gu set gu sell sa ministre dem yónni na fi télévision Al Mouridiyyah yónni fi délégation waaye yónni fi sax contribution bu am solo yónni di rep nuyu aussi représentant association islamique yi suñu mbokk Souleymane Gadiaga bi doon wax léegi di jàmbaar lool ci kuréelu arabisants yi di ko am taxawaay suñu mbokk Babali Aaw nga xam ne dafa lëkkale ñu daan ñu doon jàngale bi ñëpp depuis 40 ans mu fexe ba lëkkalewaat leen ci buum gu ñuy mën a jokkoo di waxtaan ñoo xam ne toog nañu ay ñaari fukki at gisantewuñu wala ay fanweeri at gisantewuñu léegi bés bu ne ñu déggante donte gisante yombul léegi ndax xat-xati jamono di nuyu docteur Jim Dramé nga xam ne ñun ñoo bokk nekk ci cadre inter de l'islam muy borom xam-xam bu mag fee ñuy wax laboratoire xam-xam yi moo fa moo moo fa nekk l'islam muy IFAN moom mooy pharmacie borom xam-xam yi moo tax moom dafa bëgg téere bu nit bind mu ne fa. ndax kuy gëstu ci xam-xam bu leer foofu nga wut foofu nga koy roote ji ndax léegi am na ñoo xam ne bu ñu gëstu ci xam-xam dañuy dajeeg Ahmed Sall interview ko dajeeg Moussa Kanté interview ko dem def ko téere waaye ku bëgg xam-xam bu leer bu wóor il faut nga koy ji xam-xam la mag ñi bindoon ma nga fa li borom xam-xam bind ma nga fa li kilifa yi bind ma nga fa li savant yi bind ma nga fa kon Oustaz Djim ñu ngi lay baax a baax di remercier aussi Jamia Daawal Islamiyya al Alamiya association mondiale appel bi ñu koy sos ñoom ñoo ci doon gunge ba 2011 démb dañoo dépêché délégation spéciale bu jóge Libye ñëw ci xew-xew bii dafa war a jël volam tey moo tax ñëwul waaye loolu yëpp dafay duggaat yi waaw foofu bil ahdi inna al ahda kaana mas'uula ndax su fi Xadafi jóge woon ñu arrêté activité bi day mel ni Xadafi moo doon moo doon suñ moo doon suñu Seydina Muhammad wala moo doon suñu yàlla waaye dañoo xam ne yoon yàlla warta taxaw fii gaa ngi koy mën moo tax bi fi jógee ñu takk suñu euh, tànk tubéy wala takk suñu tubéy soo suñu daal fexe ba at mu jot ci ndimbalu ko ñu mel ni Serigne Mbuub ak Ablaye Dia ak Cheikh Bass Abdou Khader ak sëñ Muntaxa ak ñu mel noonu fa chaque année rajo bi ñu doon def ñu defal ñu ko ba defal ñu lu ko raw sax ñu ci daan teew démb ak bërki démb xam ren at yi la gën naat la gën a ubbiku la gën a xéewale kon nag yàlla rek am solo di nuyu Oustaz Mouhamed Lamine Fall bi nga xam ne moo jiite alliance des arabophones du Sénégal di nuyu di ziar sama sëriñ sëriñ Cheikhouna Lo Ngabou bërki démb la ma sëñ Mbaara naan maa invité nga sëñ Cheikhouna ma ne ko kooku kooku moom chaque année samay waajur si moo ciy ñaan <laughs> mooy dugg xalwa ñaan ci kooku day ñaan ba pare ñëw tëj ko maa ngi koy nuyu baax jóge ba tubaa ñëw teew ci jotaay bi di ko am solo ci Touba di borom xam-xam euh, bokk aussi ci kuréelu Touba ci kanam di ci liggéey liggéey bu am solo di nuyu imaam Jànqa mi nga xam ni moo fi teewal association bi lëkkale imaamu Thiès Ouest mooy gox bi ñu ne mi ngi nii toog teew na fi sëriñ Babacar Cissé bu jaamal euh, di kilifa dina ci jaamal waaye bokk ci association bi wax association islamique pour le moom it teew na fi Oustaz Omar Seck bu fi teew léegi wax kàddu am solo yi. ñëw fii ci turu fédération de daara association coranique du Sénégal di gërëm famille sëñ Saliou Touré ñëw nañu fi démb sëñ Abdou Salam Diop waaw tuddoon naa ko léegi di beral nuyoo nag Cheikh docteur Mouhamed Mokhtar Lo nga xam ne mën naa ne comité scientifique bi daanaka moo ko jiite ndax at mu jot su ma defee samay consultation lépp dama koy tënk jox ko ko moom mooy defal xam nga nu ñu ngi tudd sax yéen PDR loxo ma <laughs> <laughs> <laughs> TDR TDR waaw moom mooy defal TDR yi moom mooy indil xalaat yi te mu ci gis mu xaw a mu xaw a ñàkk a méngóog li ñu bëgg a wax sax mu jubbanti ko ni ma yaakaar naa ni mu ma man ko noonu gën muy nit ku baax nag di ku ñàkk jot lool daa rey mu fay liggéey liggéey waa solo waaye at mu jot day bàyyi li muy def lépp ñëw teew fi ak ñun ñu ngi koy nuyu di ko gërëm di ko ñaan mu jotal ñu suñu nuyoo ci waa daara ji yëpp di sant mbokk conférencier yi waxoon sama waxtaan ñoom ku ci mel ni docteur Saïd Ba léegi dafa jóge ndax dafa am ay occupation di jàmbaar oustaz Mokhtar Lo naa ko léegi professeur Djibi Diakhaté léegi dafa jógee dafa tukki euh, suñu mbokk Abdou Aziz Diop di jàmbaar di ko am taxawaay ci réew mi ak ci teewaawoon ak ci tarixa yi ak ci biir cadre interdisable dafa baax rek naan ma cadre interdisable ñoom Ahmed Saloum Dieng waaye moom mu nga ci biir defe naa ma moom ci jiitu <laughs> Imam Moussa Kanté sama élève bii nga xam ne léegi moom sama oustaz la su ma toogee damay jàngaat moom it maa ngi koy nuyu bu baax a baax docteur Mbacke Diouf ma li nga xam ñoo doon jàngandoo ci réewu Libi ak imam Assane Seck di jàmbaar di ko am taxawaay téere bii nga xam ne 2010 laa ko lañ ko defoon ci araab bi ma amay xalaatu def ko ci français ren moom mii laa dénk tradition bi mu def ko defin mu sell bi ma ko ko joxee pare moom corrigé ko kii ma ko njëkk jox ne ko na ma ba mu traduire ko kii ma ko a jox ne ko nag ma ko corrigé da ko xool ne ma ko def kon ñu ngi lay nuyu di la félicité di leen ñaanal yàlla Rawdu Rayaahin bee ca Touba bëri na waxtaan yu ñuy traduit ci français jëlee ko ci français yóbbu ko ci arabe wala jëlee ko ci arabe yóbbu ko ci français moom moo ñu koy waxal kon nag oustaz yàlla na la yàlla sàmm bàyyi la fi taxawu la. léegi dama bëgg ñetti diplôme yi ñu joxe ko suñu paree suñu mbokk Moussa Kanté lire déclaration en arabe suñu mbokk Oustaz Imam Alioune liir lire bi en français. bu defee ñi sant Fall njëkk ci restaurant bi soo ko julli ñi sant Dieng julli soo ko dem ci restaurant bi incha allah. xam naa ci di ma modérateur docteur Dieye fi li nga def dafa am solo jox ma ñaari téere mu yóbbu ko IFAN maa ngi ñaan mbokk yi ku ci bind téere wala ku xam ko bind téere boo mën a fexee bañ am benn kopp wala ñaari IFAN danañ ko denc foofu denc bu ñoom wax naa ko docteur Dieye yónnee na ma téere. wax naa ko communauté Layène yónnee nañ li may sof ci lu gàtt ci conférence moo tax sànq dégg naa ñu def historique wane ci nitu diine ni ñuy contribuer ci wàllu jàmm ci réew mi ñu commencé ko cité ci l'époque moderne des années quatre-vingt quatre-vingt-dix damay remonté bu gën a sori le 18 juillet 1800 1867 bi ma ba jox faatoo ci Fandaan et non ca Somb mais ca Fandaan am jafe-jafe diggante famille bi diggante suñu maam Birane Cissé ak suñu maam Serigne Mati Ba mais benn sëriñ daara Thierno Oulaye Tambédou moo bind lettre kilifa diine yi fi nekkoon à l'époque ci gënoon a siiw ne na wax ci mbir mii bu ngeen ci ah dana métti ndax demoon nañ ba àll ak ay dëkk lakk ay ay daara ay sëriñ diine donc depuis 1867 ñu ngi contribuer ci jàmm ci réew en 1910 borom jaamal bi muy sanc jaamal dafa ñëw fekk pëli ci à côté ñu dalal ko mu sanc daara ji ne lu mu yàgg-yàgg nag bu ma dégg benn bis naan sama pël bi sama lii sama lii na ngeen ànd ak dund ci jàmm dund ci jàmm ak salaam ba léegi jaamal ak pël yi dund jàmm donc beneen bi moo di il faut ñu fexe xam sunu démb li nga xam ne moom la suñu maam Thierno Souleymane Racine Ba def ca Fuuta ak almaam Abdou Khadre pour contre le Guinée-Kobe yi loolu la ceddo yi doon def ca Saloum moo tax magi Saloum dajee ca Wanaar avant 1867 ne nañ taxaw jàmbaarloo ak ceddo yi ci lañ tànnee Maba Jaxu Ba mu jiite mu nekk tëj. ci armée bi loolu moo tax Diat Maba Diaw Ba juddu en 1861. voyez donc il faut que ñu xamal nit ñi xale yi suñu histoire dem xam ne démb ba léegi suñu sëriñ daara yi moo suñoo bàyyi di dax di liggéey pour jàmm fu may daanelee mooy alaaji il faut ñu sensibiliser doomu aadama xale yi pourquoi gis tey pour une exemple palais bi. du n'importe quel tenue nga fay def da ngay am loo xam ne boo ko solee boo defee ci pare bi doo dugg et pourtant ji n'importe quel tenue dafay dugg c'est grave donc il faut ñu yar nit ñi sensibiliser leen ñu xam ne daara yi daara yi dafa nekk ay éveilleurs de conscience nu daara yi gën a màggee Sénégal crise économique crise morale valeur crise valeur gën a wàcc mais nu daara yi gën a delloo gannaaw crise bi gën a yëg wasalaam al ustaz ahmed salim dieng maali dakatira wal musaahimin fi hada al multaqa al islami sanawi al asil ayuha al hudur al karim wal jam al waqar assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh يسرني في هذا اللقاء العلمي المبارك أن أتناول الكلمة باسم الاتحاد الوطني li jamciyati almadaris alqur'aniya fi Sénégal li izhaari ba'di ma ladayna min ihtiraamin wa mahabba li Cheikh Ahmed Saloum Dieng mbokk yi maa ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi ku baax kii tax ñu daje fi may ñu ñu dund démb ba léegi yiw wudul jeex te jamono soxla ko muy Cheikh Ahmed Saloum Dieng xafisahu llahu nuyu boroom xam-xam yi fi nekk yépp dakatere yi doomu soxna yi sëriñ si sant leen gërëm leen may jël kàddu bu gàtt ci turu fédération nationale des associations des écoles coraniques di Sénégal ñun ñépp ñu waroon teew ndax li te yëfu doomu daara la waaye ma ñëw ak membre yi fi nekk yépp ma fekk leen fi ma ànd ak ñoom représenté leen cheikh bi édition yi fi mas a jaar yépp rëy nañu réussir nañu nekk na meññeef woo xam ne du jeex waaye bii moom fa tabarakallah li ñuy njëkk a ñaan mooy mbooleem ku fi exposé na wutaat benn commission ni ñu def ci livre bi ñu dajalewaat lii fi def def ko benn majeur jox ko gouvernement bi ne am na foo foo jommi woon jaaxle fi multaqa bi indil na la solution dem ci këru diine yi ne li ngeen ñu doon yebal di ko woote solution baa ngi société civile bi kazalika gis nga fii xam-xam dëgg moo fi génn yiw dëgg moo fi génn dafa am benn ay alquran daanaka li ñuy wax lépp firi na ko wa taawanu ala albirri wa taqwa wala taawanu ala ismi wal udwan dañu wax ne yàlla nee na ñi war a ànd ñépp nañu ànd maanaam doomu daara lii sëñ Abdou Diop doon wax léegi bi ñuy sos fédération bii may wax docteur Djibi dem ci sunu baay Cheikh Abdoul Aziz Al Amin dem ci Cheikh sëñ Saliou Mbacke dem Kaolack dem Njaasaan dem Thiénaba mag mu ñu dem Cheikh abdu def nañu wax nañu mag ñi nekk tey ci barzax tey bëgg nañu ndax sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma Cheikh Alhaji Abdou Aziz Dabba Maolana Cheikh Alhaji Ibrahima Niass Serigne Fallou Mbacké ñooñu ñëpp Serigne Cheikh Tidiane Sy mag ñooñu ñëpp lu ne jéem nañ ko fi pour ànd ndax kucceel bi ñuy tubaab yi di kucceel ak gàllankoor mu mën a mu mën a bañ a tàbbi ci daara waaye lii tey mooy yaakaaru daara mooy li ngeen wax ne ci kuréel yi booloo te ànd nekk benn xoolal docteur ji bi daara yi bi ñu booloo lim leen jural ci ay ay injaazaat bari la mais xoolal le 28 novembre bii ñu ànd di naxanteek nguur ba mu décrété bis boo xam ne commune si daara yëpp ñooy dajeek nguur di ko wax luñ ko bëgg a wax lu mu ci mën mu def lu mu ci mënul mu jéem. beneen bi mooy li ngeen wax mooy réew mi suñu bëggee mu am jàmm wax nga ko Jóob wax na ko Seck wax na ko mag ñu bari wax nañ ko fii mooy këru diine yi nañ leen joxaat seen cër. fi may jeexale ndax lu lu bëri laa bëggoon wax mais al waxtu waxtu yi agsi na ba pare ci at yi ci gannaaw tubaab yi dañoo bëgg def benn galgal bu rëy bëgg galgal këru diine yi fenq kër gu ne ci kër ci ki moroomam Cheikh Al Hadj Abdou ba mu ko déggee moo xam ne Touba ak Tiwaawan dàtt la ci kër yi diine yu mag yi fi nekk yépp mu di daw seeti xalifa ba fa nekkoon ca jamono dal di waxtaan ak moom ci dëkk bii ma jóge muy njóos yi mu ne ko day Serigne Touba ak Alaaji waxoon nañ ne mahram mooy sunu adnaan adib mizaanan maadan man yujaawizu adnaanan fa takzibuhu qad jaa min al alamin mu ne man ak yéen maa ngi bokki ak ci dëkk bu ñuy wax njóos yi ci Jolof kon ñoo bokk maam bu ñu kenn jaxase fi may jeexale docteur beneen bi Serigne Cheikh Tidiane si moom la daan dafa am tubaab bu fi ñëw dem ci moom ne ko Cheikh yéen Tidiane yi ni ngeen silwis yi ni ngeen bëree xam-xam ni ngeen déggee jamono ak fi ngeen toll murit yi nekk seen wet di cëppi cëppi rek dañ leen a bëgg a dooleel ngeen occupé saaxaar yi Serigne Cheikh Tidiane Sy gémmi te te téye gémmi ñëw tubaab bi génn rek mu daal di woo Serigne Abdou Lahad Mbacké dalli na ko am na ku génne ci man saay-saay la yàqkat la wóor na ma ne bu génne ci man ci yow la jëm si mu ne ko lu xew mu ne ko lii ak lii ak lii wax mu ne ko doom moo ko wax mu wax ko ñetti baat yi ko wax sëriñ Abdou Lahad daldi woo kaati bi ne ko bindal ma ñu toog tuuti rek protocole bi de ko nit jóge na tugal nee na def na soxla mu ne ko Cheikh Abdou Lahad ku dem Europe gis murid yi ni ñu jàmbaare liggéey rek la ñu xam laxasaayu rek liggéey soxla wuñ dara soxla wuñ àdduna te résultat yi feeñ na ci ñoom ndax xoolal koom mi ñu am fii ci réew am ko bitim réew tiijaan yi nekk bëgg leen jaay affaire dañ leen a bëgg a dooleel ngeen régler réew mi ndax yéen a moom réew mi. Cheikh Abdallah Hadali koy jox ñetti baat yi ko Serigne Cheikh Tidiane si wax tubaab bi na ab ceeb dëggal ma bii ma ñibbi ñii kat ñoom déggoo nañ kenn mu leen yàqal. Euh, cheikh bi jërëjëf yàlla yàlla may la fan gudd may la wér lii yàlla na gën a bëri te jëm kanam xaasaabu billahi tawfiq wa salaamu am mbégte ànd ak yéen démb ba tey ci jotaay bu sell bi muy jotaay jàmm jàmm moo gëm fi gën fii moo gëm moo gën fële yàlla nañ ko yàlla may waaye yàlla na ko yàlla dolli ci àdduna bi yëpp yàlla na ko yàlla may tamit réewu Palestine yàlla na yàlla génn leen ci coono yi ak xat-xat yi ñuy sant bu baax euh, ñi nga xam ne ñoo doon taxawe thème yi am solo yi di ci am mbégte am nañ ci it yokkute ndax àdduna bi dafa toll foo xam ni ñi war a wax ñépp war nañoo taxaw wax liñ war a wax ndax dañ ne assaaki assaakitu anil xaq seytaanul axras noppi ci dëgg kooku seytaane bu muuma nga kon ñi mel ni yéen dañoo war di taxaw saa su nekk jotaay yu mel nii di bari bari gi muy bari mooy tax nit ñi di fàttalikuwaat fu ñu bokk waaye di fàttalikuwaat tamit seeni taxawaay loolu dafay am solo bu baax jàmm moom ñëpp la jikk mais defe naa ni jigéen moom ak njaboot ñoo ci raw ndax ñun bu jàmm amul ñun ñooy gën a loru ñooy gën a sonn ndax ñun ñoo féete fépp kon ñu leen di sant bu baax a baax a baax di sant modérateur bi macha allah waaye di beral cant tamit oustaz Ahmed Saloum naa Nasiru Diin ndax li muy taxawee nag ñëpp la ko defal defal na ko président de la république Macky sal moom mi nga xam ne mooy yilif réew mi waaye defal na ko kilifa yi diine yépp nag ci seeni kër ndax taxawaay bii nag defe naa ne ku nekk gis nga ci sa bopp waaye ñu leen di wax ngeen defal ñu ñaantam ci suñu association bu bees tàq bu ñu sos jamaatu nisa sénégaliyatil muslimat muy ASFEM association sénégalaise des femmes musulmanes je suis la présidente Raïssa Euh, li tax ñu sos ko tamit bëgg rek njaboot gi am dal jigéen ñi am dal ndax dañoo jàpp ni seetaan dafa jeex ndax gis dëgg ngay toog di seetaan nag lu la naqari doo ko mën a faj wala nga dëkkee xultu rek nag ndax da sànq dégg naa ci waxtaankat yi ñu ne ndax euh, yëf yi bari na waaye séddale bi matewul man ni ñi fi nekk ñoo cuune rek ñu fi nekk ñoo cuune waaye bu ñu cuunewul woon séddale bi mate ndax li fi nekk nag bari na tey la gën a bari kon séddale bi moo moo xuusee wala kon gars yi ñoo cuune kon comme gars yi cuune nag ñun moom dañoo bëgg a taxaw en tant que ay femmes musulmanes taxaw li ñu am ci xam-xam ak néew euh, wut ñu ñu jàppale taxaw ci suñu wet bi ñu yokk di ñu xalaatal ñaaw-ñaaw yi fi nekk comme li ngeen di wax muy al unf al maddi wala unf al maanawi nga xam ne ku nekk xam na ni wet goo laal daj ko ñu fexe mu wàññiku lool ci àdduna bi ñu ngi leen di sant bu baax in uridu ila islah mastataatu wa ma tawfiqi illa billah wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh والسلام معنى جميل معناه الأمان وينتج عن الأمان المحبة والإطمئنان وتتحقق به السعادة بين الشعوب والأفراد وقد حث الله عليه في آيات القرآن الكريم فقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وأخص نوعا من أنواع السلام وهو السلام الاجتماعي الذي يجب أن يكون بين كل أفراد مجتمع من المجتمعات وأريد أن أتحدث معكم عن المنطقة التي تجري فيها الأحداث الآن وهي منطقة الشرق الأوسط إن القوانين الوضعية والأعراف الدولية والعسكرية يقولون ونادى بذلك الزعيم الراحل أنور السادات رحمه الله قائلا أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة وهذا ما فعلته جمهورية مصر العربية بعد عام سبع وستين بعد احتلال الإسرائيليين للأرض المصرية وبعد أن زعم الإسرائيليون أن جيش إسرائيل لا يقهر وأقاموا خط بارليف الحصين ولكن العسكرية المصرية قالت كلمتها وكانت التضحية بالروح والمال وكان النصر للجيش المصري واسترداد الارض المحتله ان القضيه الفلسطينيه تحتاج من العرب ومن المسلمين جميعا مثل ذلك حتى يرجع الحق الى نصابه وينعم اهل فلسطين بارضهم وحياتهم مثل سائر الشعوب ويفرض السلام على العدو بالقوه لأن القانون الوضعي هو حاله ذلك وجميع الدول في العالم تعترف بذلك أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم والأزهر الشريف ونحن نمثله وعلى رأسنا شيخ الأزهر إن شيخ الأزهر يبذل جهدا كبيرا وكذلك مؤسسة الأزهر وكل المؤسسات الإسلامية في العالم تبذل جهدا كبيرا لتحقيق السلام بين الشعوب بين المسلمين وغير المسلمين فإن شيخ الأزهر في كل محاضراته وفي كل اجتماعاته وفي كل ما يحضره من مناسبات يؤكد على السلام بين المسلمين وقبل ذلك غير المسلمين لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا كلنا من أصل واحد كلكم لآدم وآدم من تراب أسأل الله تعالى التوفيق والسداد والسلام لكل شعوب الدنيا وكل المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم جميعا لحسن استماعكم de la population sénégalaise et pas de la africaine n'est pas sans conséquence sur les problématiques de développement, notamment en ce qui concerne l'éducation, l'enseignement, la formation, l'emploi et l'employabilité des jeunes, leur insertion dans le tissu socio-professionnel et économique, l'immigration clandestine des jeunes qui concerne l'éducation et l'enseignement. Toutes ces questions méritent de la part de tous, autorités comme administrés, des réflexions et des actions à la fois hardies, constantes et appropriées. Certes, l'État, le gouvernement, les pouvoirs publics ont consenti beaucoup d'efforts et de réalisations dans ce sens. Mais le chantier est vaste et énorme. Des débats fructueux et enrichissants ont marqué tous les travaux de la journée à l'issue desquels ces recommandations fortes ci-après ont été formulées. Auparavant, lors de la cérémonie d'ouverture, Serigne Souhaïbou Mbacké, fils du calife, général des Mourides, Serigne Moutala Maké, a transmis le message du Khalif général. Message de paix, de fraternité et appel à la concorde, à l'union des cœurs et des esprits. À la suite de cela, le gouverneur argent chargé du développement représentant l'État a délivré un message fort, éloquent, en revenant sur la thématique quel rôle pour les religieux et les acteurs de la société civile dans la résolution des tensions sociopolitiques. qu'elle a qualifié d'actuel et d'important. Elle a témoigné sa compassion et sa solidarité à son Excellence, l'ambassadeur de l'État de Palestine, à qui elle a fortement témoigné le soutien du Sénégal envers son pays et son peuple. Elle a tenu à magnifier l'œuvre et l'engagement du coordonnateur-chef Mohamed Ahmed Saloum Dieng Nasruddin, dont l'abnégation et le dévouement au service de la paix, du développement et du raffermissement les liens entre les familles religieuses du pays. aussi les différents acteurs du pays, acteurs politiques, acteurs de la société civile. Son Excellence, l'ambassade de l'État de Palestine a fait part de la situation catastrophique que vit présentement son pays et son peuple. Une violence meurtrière, une barbarie féroce et atroce, des morts par centaines, des blessés graves et sans soin des femmes, des enfants bloqués, bombardés, étouffés. Bref, une situation horrible, une barbarie indescriptible, un tableau sombre, apocalyptique, qui a fait verser de chaudes larmes. Parmi les sens, dont le coordinateur du forum lui-même, Cheikh Ahmed Saloum Dieng Nasruddin. Le coordinateur de ce forum qui a vivement remercié tous ceux et celles qui ont participé à la réussite de cette organisation, de cette, deuxième, de e forum. Les recommandations. Le Forum islamique pour la paix et l'Union de la jeunesse musulmane sénégalaise exhorte les familles religieuses, les leaders religieux et coutumiers, les responsables d'associations religieuses à davantage insérer dans le discours et messages ce qu'ils appellent un appel à la non-violence, à la paix, à la retenue pour le Sénégal, mais aussi pour rester un modèle phare en matière de stabilité, de paix sociale et de concorde nationale. Le Forum islamique pour demande aux acteurs politiques, aux acteurs de la société civile, aux leaders d'opinion de ne ménager aucun effort pour la consolidation de la paix sociale, d'éviter tout acte, parole, attitude ou comportement qui pourrait générer de la violence ou compromettre la stabilité du pays. 3. Face à la vague déferlante de la migration clandestine, avec des dizaines, voire centaines de jeunes qui meurent en mer, noyés et perdus dans les océans, le Forum islamique pour la paix se dit conscient des difficultés que vivent les jeunes, la peur de l'avenir qui les hante. Toutefois, ils exhortent la jeunesse à faire preuve de plus de patience, de persévérance et d'explorer toutes les possibilités de réussite dans leur pays. Et surtout, d'éviter de penser que l'immigration égale forcément réussite social 4. Le Forum invite l'État et les pouvoirs publics à se pencher davantage sur la jeunesse Cette catégorie vulnérable qui représente 70% de la population et qui parfois ressent des angoisses pour son avenir et même son présent dans un monde difficile, un monde en crise. 5. Le Forum islamique pour la paix manifeste et témoigne sa solidarité agissante envers le peuple libyen, frère, suite aux intempéries, inondations meurtrières qui ont fait beaucoup de victimes humaines. et de dégâts matériels et infra en infrastructure. Le Forum islamique pour la paix souhaite un prompt rétablissement aux nombreux blessés et prie Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder le paradis, firdaus éternel à tous ceux qui ont perdu la vie au cours de ces inondations. Le Forum islamique exprime sa solidarité et sa compassion au peuple frère du Maroc suite au tremblement de terre qui a secoué ce pays frère ami. Le forum présente ses condoléances aux familles des victimes et puis Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder son pardon et son paradis aux victimes décédées lors de ces violents tremblements de terre. 7. Le forum renouvelle son soutien au peuple palestinien et condamne fermement les actes de violence et de barbarie qui s'abattent sur des enfants innocents, des femmes et des populations civiles. Le forum remercie le président Macky Sall pour son soutien constant pour la réunion annuelle du forum fait à Thiès 12 novembre 2003 le forum الملتقى الإسلامي السنوي للسلام ما بين 11 و12 نوفمبر 2023 ميلادية في فندق الديور بمدينة تشيس المنظم من طرف اتحاد الشبيبة المسلمة السنغالية البيان الختامي ما دور رجال الدين وفعاليات المجتمع المدني في التهدئة الاجتماعية والسياسية كانت أعمال الملتقى الحادي والعشرين تتمحور حول هذا الموضوع الرئيسي وقد قام بمعالجته كبار العلماء والمفكرين والباحثين بتخصصاته المختلفة ومن أماكن شتى نذكر منهم البروفيسور والعالم الاجتماعي جيبي جاختي وسعادة السيد عبد العزيز جوب والدكتور سعيد با والدكتور حسن سك والدكتور مختار لو والدكتور مكي جوف وبحضور السيد زهير علي مدير إدارة الدعوة والمراكز الإسلامية بجامعة الدعوة الإسلامية العالمية بليبيا وبحضور ممثل فخامة الرئيس مكي سال هذه النخبة من المفكرين والإحصائيين عالجوا بالتوالي المواضيع الفرعية التالية علاقة السلام والاستقرار بالتنمية والازدهار منظمات المجتمع المدني ودورها في التهدئة الاجتماعية في السنغال الشباب السنغالي المعاصر وثقافة العنف والتشاؤم ما هي الحلول المقترحة والجدير بالذكر أن الموضوع الأساسي والمواضيع الفرعية ذات أهمية معتبرة حيث لا يجهل أحد أن التوتر دائما يسود في إفريقيا الغربية خاصة وفي القارة الإفريقية بصفة عامة هذا فإن النسبة المئوية للشبان الذين لا يتجاوز عمرهم 35 سنة مرتفعة أضف إلى ذلك أن أكثرهم يحتاجون إلى التشغيل والتوظيف وبالتالي فإن البطالة تؤثر في تسيير عجلة التنمية السنغالية وذلك لانكماش التربية والتعليم والتكوين لهذه المجموعة المهمة من الشعب السنغالي وذلك مما سبب في الهجرة غير الشرعية التي تؤدي بدورها إلى موت أعداد كبيرة من الشباب, من الشباب في البحار والصحارى وهذه الوضعية المأساوية تستدعينا جميعا إلى السعي للإتيان بحلول مناسبة وفي الحقيقة بذلت الحكومة مجهودات جبارة غير أن المتطلبات أكبر وبعد مناقشات مثمرة وبناءة تمخضت التوصيات التالية أولا يحث الملتقى الإسلامي للسلام واتحاد الشبيبة المسلمة السنغالية ويطالب من الأسر الدينية والقادة الدينية الدمج في خطبهم مقالات تدعو إلى السلام wa tanbudu l unfa li yadall sénégal namuzajan fi listiqraari walsalaami alijtimaai walwaxdati alwataniya thaniyan yutaalibu almultaqa alislami lilsalaam min alfaaliyat alsiyaasiya walmadaniya walqiyaadiyina an yabdulu qusaara juhudihim لتعزيز السلام الاجتماعي ويبتعدوا عن كل فعل أو قول أو سلوك يؤدي إلى العنف وينبذ الاستقرار وينبذ الاستقرار في البلاد. ثالثا يدعو الملتقى الإسلامي للسلام الشباب إلى التحلي بالصبر والمثابرة أمام هذه الظاهرة التي أدت بهم إلى المغامرة في البحار والصحارى طلبا للمستوى المعيشي الأحسن والمستقبل الأكثر تفاؤلا إن الملتقى يشاطرهم ظروفهم الصعبة التي يعتريها اليأس والتشاؤم غير أن الملتقى يحثهم على البحث يحثهم على البحث an alturuqi allati tuaddi ila alnajaxi fi lbilaadi wala yactaqidu an alhijra taani alfawza wannajax alijtimaci rabian yutaalibu almultaqa alislami lilsalaami min aldawlati mazidan min alihtimaami ala amri alshababi alladi yumathilu akthar min 70% min alsukkaani wa hadihi alsharixati min almujtama sarican ma tashcuru bitahmish xaamisan يبدي الملتقى تعاطفه وتضامنه مع الشعب الليبي والشعب المغربي الشقيقين للنكبة التي وقد عليهما والتي أدت إلى فقد عدد كبير من الأرواح وأضرار جسيمة في المرافق وعدد هائل من الجرحى والمنكوبين داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الموتى منهم واسع رحمته ويشفي الجرحى سادسا yujaddidu almultaqa alislaami lissalaami tadaamunahu wa ta'yiidahu lilshacbi alfalistini albaasil wa nidaalahu almashruuc kama yunaddid bi acmaali alcunfi alhamajiyati albashica ala alatfaali alabriyaa wannisaa والسكان المدنيين في قطاع غزة في قطاع غزة ويستغرب الصمت العالمي سابعا يوجه الملتقى الإسلامي شكره خاصة إلى فخامة الرئيس ماكي سال li daamihi daaim wa thaabit fi sabili najaahi hada almultaqa alsanawi lissalaam thaaminan wa axiran yuraxibu almultaqa bi wafdi jamiyati daawati alislaamiyati alaalamiya almushaari fi hadi aldawra kama yujaddidu almultaqa isticdaadahu taam liltaawun maa aljamciya fi kulli maa yaxdumu alislaama walmuslimin xurrira fi Thiès fi 12 novembre alfayni salaasa wa ishrina al multaqa al islami lissalaam